à téléspectateur Light TV tey ñu ngi fii Djigo doon seetaan quart de finale tournoi 2AFP les amis du football pikinois euh, tournoi bi mu ngi tudd Pikine un air de famille euh, deuxième heure bi nag mooy doog a jeex nii si diggante dex gi ak euh, naataange dex gi moo gagné naataange 2 buts à 0 ñu la ñu jox ki nga xamante ni moom mooy président kii bi mu jox trophée ki nga xamante ni moom mooy jour le le le le le du match mu jox ko trophée lam di match bi waaw léegi ñu bàyyi la nga nga nga nuyoo présenté wu euh, wax lan ban sensation nga am ci joxe. et loo xam ni xaaruma ko woon xëy na euh, dañ ma cëral rek jox ma ko wax dëgg yàlla ah ma si am fierté lool di ko jox koo xam ne tamit muy sama joueur di sama tipo di déglu samay conseil et ñuy jàppalante te ñu koy ñaanal. Ah, mu nekk joueur boo xamante ni joueur bu am njëriñ lay doon ah tournoi bi tamit dañ koy rafetlu parce que tournoi bi ñun ñu ngi dëkk ba Malika mais Pikine moom dañu jox Malika cër te dañ leen a bàyyi xel waaw ba lu ñuy def dañ ko ci boole kon tournoi bi ñoom luñ ñu ciy séntu yàlla na yàlla def mu doon ah, lu raw seen njort waaw man daal vraiment kontaan naa trop waaw. si tournoi bi et di leen ñaanal yéen ñëpp nag ñun sport la ñuy dund te sport la ñu xam quoi man nag je suis le président d'honneur de l'ASC Dex gi waaw. ki nga xamante ni moom mooy euh, tey jii euh, l'homme du match ñu laaj ko ban sensation la am ci lii ñu ko décerné tey. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di sant yàlla tamit ci trophée bii nii ma jël muy l'homme du match bi. waaw c'était pas évident tamit euh, football moom moo demee nii yaakaar naa dangay am fulla ak fayda wane li nga war a wane si biir terrain bu ko defee nga mën a am récompense quoi waaw di tamit rafetlu initiative bi gars yi jël mooy euh, tournoi bi parce que daf ñuy permettre ñun joueurs yi tamit ñu mën a rattrapé wu mën a tamit nekk si benn euh, compétition boo xamante ni ñu mën a dimbale pour ñu préparer suñu nawetaan bu baax a baax a baax waaw di santaat yàlla tamit ci trophée bii nii xam nga di ko may tamit sama président bi nga xamante ni moom macha allah maanaam aw ma fayam daal wallaay su ma nekkee di wax sax si loolu noonu damay juum parce que am na lu bëri loo xam ne mu koy defal loo xamante ni yaakaar naa du ma toog di ko wax mais dama koy bàyyi ak yàlla bi nga xam ne moo am fay yàlla ko yàlla fay xam nga di kontaan naa trop tamit ci trophée bi di ko may tamit sama famille yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyi ma kenn di ko may tamit jour yëpp parce que ñoo bokk liggéey bi man ak ñoom xam nga euh, ay jour lañ ni man tey jii man la ko yàlla jox beneen jour yàlla mun na ko jox keneen tamit ci équipe bi waaw di ko may joueur yëpp nag bàyyi ma kenn cat ba cat. Ah, waaw maa ngi ziar ñëpp nag. nan nga dundee match bi tey yow personnellement. waaw match bi nag xawoon na difficile ci man tuuti xawoon na difficile ci man parce que gars yi dañoo xamante bu baax nga waa naataange xamante nañ bu baax joué nañ benn ñaar xam nañ ma bu baax moo tax mu xaw a métti ci man mais tamit euh, ak sama intelligent fexe naa ba génn ji fexe naa tamit ba def différence bi quoi. waaw ba pare tey tey dafa mel nii tey tey match bi dafa dafa nekk contre ñaari famille même famille quoi parce que flanc bi dafa mel nii sa sa sa sa sa ki fa nekkoon euh, am na loo bokk quoi. waaw moo tax moo tax ma wax la man dañ ma xaw xam parce que Moussa Daba la sama nijaay la sama nijaay la xam na ma bu baax a baax a baax moo tax match bi xaw a man mais alhamdulilah xam euh, def naa différence daal. waaw léegi yow lan moo tax tey nga ñëw rek gagné nijaay noonu. <laughs> waaw waaw noonu moom yaakaar naa boo duggee ci biir terrain moom amatul nijaay amatul xarit amatul dara. dañuy jouer rek parce que ku ci nekk sa liggéey nga yor bu jeexee rek après jeex na. waaw ok merci beaucoup ñu ngi lay ziar de Light TV mu ngi lay ziar ak 2AFP ñu ngi lay remercier di la féliciter di la wax bo bonne continuation.